أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي asalaamaaleykum groupe As-Samadiyya man El Hadj Malick Guèye maa ngi ziar waaye di tàmbale ci ziar bi sëriñ Abdou Samad ni kilifa ak jotaay bi di naan suñu borom àggaleel ko yéeneem ci jullit ñi waaye noonu la ni ñaanalee boroom xam-xam yi kilifa yi nekk ci biir group bi ñëpp rek kenn bañ a des di jël sunu nuyoo di ko tegaat ci loxol Serigne Samb directeur de programme mu jotal ñu ko ci góor yàlla yi nekk ci biir groupe bi kenn kenn bañ des rek ñëpp kenn ku ci nekk rek ñu ngi lay ziar ak ñaanal su ko defee nag ñu daal di ñëw ci ndox moo xamante bi mun tàngal lay doon ndox munu tàngal muy lu am solo te yomb. waaye ci yombaayu mboom boobu nag ci ngay gis ne dafay mel ni dafay jafe di ko respecté nga gis ne bépp jàngoro boo xamante bi am nga ndox mu tàng mi boo ko boo ko jàppoo ak moom lu mat weer ak fukki fan ak jàngoro ji lu mu tar tar tar tar ci gis tàn goo xamante bi naanoo médicament demoo fenn ndox mu tàng yi moo la faj kon mu tàng lu am solo la ñu bàyyi ko xel ci façon bii ñu koy waxee. ndox mu tàng di lu bari njëriñ lool ci doomu aadama bari lool lu muy faj ci doomu aadama waaye ci façon bii boo xëyee mu njëkk sa biir lu toll ci ñaari kaasu weer ci tàngoor bu yam ñaari kaasu verre buñ ko waxee mooy kaas yi nga xamante ni moom nga baaxoo di naanee kafe nga am ca yaar yu tàng tàngoor boo xamante bi di nga ko mën a naan boobu mooy première bi boo añee ba noppi naka noonu nga defaat noonu boo añee ba noppi nga defaat yeneen yaari kaas verre ndox mu tàng boo reeree ba noppi naka noonu tamit nga defaat noonu nga defoon maanaam boo añee ba noppi ak boo reeree ba noppi ak bala ngaa tëdd kon booy xool suba gi la añ reer ak bala ngaa tëdd muy quatre fois par jour nga jàppoo ko trente jours danga mel ni ku delluwaat xale ci ak wér lool goo xamante ni da ci yéemu yow yow mi nga xam ne da ngaa wér ak wér gu mën doon nag ana lu muy faj ci nit waaw gannaaw bi nga xam ne waxee nañ ko nii ana lu muy faj ci nit ñëw ci premier bi day faj ndigg luy metti moo xam jigéen moo xam góor ci façon bii ñu ko waxee boo ko defee noonu day faj ndigg luy metti moo xam jigéen moo xam góor muy muy muy muy premier bi deuxième bi day wàcc day wàcce day maanaam day wàññi day wàññi biir bu rëy muy deuxième bi day wàcc biir maanaam day wàññi biir bu rëy ndax bariwaane koo xam ne da gis ne biir bi lépp ngelaw dong la troisième bi day génne biir bu def air maanaam ngelaw quatrième bi day génne graisse bu bari ci doomu aadama cinquième bi day génne mbalitu biir ndax biir dafa am mbalit biir dafa am mbalit day génne kon mbalitu biir ci yaram juróom-benn bi day raxas deret juróom-benneel bi day raxas deret ba mu set wicc juróom-ñaareel bi day faj goitre juróom-ñetteel bi day day day day faj prostate juróom-ñeenteel bi day tax ngay nelaw nelaw yu doy sëkk ndax bari waa ne koo xam ne bu tëddee guddi gi mën na cee yeewu ñeenti yoon loolee ak wér dong la fukkeel bi day tax nga mën a lekk fukkeel bi ak benn maanaam bi day tax lekk bi gaaw a rees fukk ak yaar muy douzième bi day tax doo tayyel te bokk na ci ak wéradi lam lay njëkk a indil mooy tayyel tayyel jàmm yàlla tayyel jàng alxuraan tayyel dox tayyel nangam tayyel nangam saa bu duggee rek jàngoro la treizième bi muy fukk yi ak ñett day tax nga mën a sëy bariwaa na koo xam da ngay jékki-jékki mu ne la sama awra day dugg sama awra day dugg infection dina ko def waaye ndox mu tàng mi nag lu ci gaaw la di génne awra bu dugg bariwaa na koy faj te faj ga day am ay gàllankoor waaye bu boo bu boolee di ko naan ba pare di ko sangoo loole moom leneen lay waxati waaye du bokkati lu muy waxati ci loolu quatorzième bi day faj ndoxu siti ndoxu siti bii tey da koy faj moom ndox mu tàng mi quinzième bi day leeral bët waaw quinzième bi day leeral ay bët boo amee bët yu lëndëm di ko naan baax na ci day leer day tax nga mën a xool xool bu bu bu mucc ayib seizième bi baax na ci jabet muy suukar ki amee suukar booy naan ndox mu tàng te daluloo woon du la dal kon ndeke suukar si gaa yi ragal boo dee naan ndox mu tàng te amoo ko woon doo am suukar waaye boo ko amee baax na ci da koy wàññi moom ndox mu tàng euh, dix-septième bi tension ndox mu tàng lu ci baax la lu ci baax la mooy dix bi tension lu ci baax la dix bi li nga moom la wax hépatite ndox mu tàng baax na ci lool dix-neuvième bi wàllu bëñ wàllu bëñ waaw ndox mu tàng lu ci baax la rawatina nag booy tëdd nga galaxandikoo ndox mu tàng te nga def très attention tamit ndax ndox mu tàng ak ndox mu sedd doo doo doo galaxandikoo ndox mu tàng jóge fa dem naan ndox mu sedd loolu moom boo koy def moom léegi nga ñàkki bëñ ak ku mën doon kon ndox mu tàng mu njëkk ci say bëñ waaye booy tëdd mu mujj say bëñ day tax bëñ yi day dëgër day tax nga mën a matt day tax mu nga mën a yéey day fay génn tamit salte yi nekk ci biir kon boo ko dee borosoo boole ko di socc jafe-jafe bëñ moom mën ko ko bañ kon ndox mu tàng baax na ci ay bëñ da koy dëgëral vingtième bi boo colandeeree del naan ndox mu tàng da koy faj vingt et bi nit bu toll diggante jigéen ju ëmb ndox mu tàng baax na ci moom jigéen ju tollu diggante ndox mu tàng baax na ci moom ci façon bii ñu ko waxee boo ko dee naan hmm. baax na lool ci moom mën na koy naan di ko sangoo kon loolu bokk na ci li nga xamante bi dina tax cër xale ba du am benn jafe-jafe laa ko te cër yëpp ay mat te bu dee am doom am doom mucc ayib lay am doom du am benn jafe te it néew na ngay gis ku koy jëfandikoo ñu op ñu def la césarienne kenn du xottu si biir saa boo waree am doom da am doom 23 maanaam bu boo soj bu soj bu méttee del naan ndox mu tàng soj waaw ki nga xam ne soj daf ko yomb moo xam yaaf wala soj waaw te ànd ak saqat bu métti waaw kooku del naan ndox mu tàng 24 bi boo amee biir buy metti ñaar fukki ak ñeent boo amee biir buy metti del naan ndox mu tàng biir bu metti ku ko am boo nanee ndox mu tàng day daal di wér ñaar fukki ak juróom muy vingt cinq ba tey wàllu wàllu ansim naan ndox mu tàng da koy dala ciy dimbale da koy faj faj bu gaaw la koy faj ansim nag bokk na ci gis na ko fajee tamit bisaab bu xong buñ tàngal def ci tuuti kaan nga ut sa loxo ba mu fees ci bisaab nga baxal un litre ndox xooj ko def ci tuuti kànni naan ko bidon boobu ci un litre bi balaa balaa moo jeex rek da gis ne enzyme daal di waaye boo yemee ci ndox mu tàng mi rek kooku tamit beneen affaire la ci da koy daal di faj kon loolu bokk na ci li nga xamante bi dina faj ndox mu tàng dina faj euh, baat bi nga xamante yi dafa amee enzyme su ko defee ñaar fukki ak juróom benn yaram wu metti lool te la koy def xamoo ko del naan ndox mu tàng waaye di ko sangoo boo ñëwee ci euh, ñaar fukk ak juróom-ñaar yi ba tey karaw guy ruus nga xam ne dangay nelaw ba yow gis darab bi lépp ñuul kukk ndax lan ndax karaw loolee la koy saafara mooy del naan ndox mu tàng di ko sangoo ñaar fukki ak euh, juróom-ñett yax yuy metti ba tey metti gu woo xam dafa tar del naan ndox mu tàng di ko xooj ci ndox mu tàng te bañ koo xooj ci encassable ut bool weñ walla njaq dana saafara tànk yooyu kon loolu bokk na ci secret bi nga xamante bi mooy ndox mu tàng da def bu ñëwee ci fanweer yi moom ndox mu tàng nag ni nga koy naanee noonu lañ koy sangoo ni nga koy naanee noonu lañ koy sangoo waaye tamit noonu lañ koy siwoo waaw lu am solo la ku boole ñett yi du yàgg danga xam ne kat laal nga sa sa sa sa sa garab maanaam di ko naan di ko sangoo di ko siwoo lu am solo la ci doomu aadama bari na ñoo xamante bi dañuy gis ne seenim saw day bari lool lool lool lool lool du du ñemee naan ndox ndax saw mu bari waaye fi mu doon nii boo dee jëfandikoo ndox mu tàng saw mu bari moom da ngay gis ne de daal di arrêté waaw saw mu bari boobee day daal di arrêté waaw kon loolu bokk ci li nga bi li nga xam ne mooy infection sax boo boo dee boo gànnawaayee ca wanag wa yóbbaale ndox mu tàng loolee tamit lu ko gën a gaaw ci euh, ray ko ci maanaam ci leneen lu bokkut ak ndoxum tàng lu ko ci gën a gaaw bariwut kon nu nga xamee ne noonu leen koy naanee noonu leen koy sangoo waaye noonu leen koy siwoo kon ndox mu tàng njëriñ di kenn xamu nu mu toll yu metti ba tey di ko raxasee ndox mu tàng def ci limon tamit lu am solo la baax na ci lool waaw baax na ci lool lool lool ci tànk yu metti nga sot ci limon xooj ci ndox mu tàng di ko raxase ndox mu tàng dana ko faj dana génne tàngoor yaram wa bu dee ci yaram wa dafa am tàngoor dana ko génne waaye bu dee dafay metti dina ko génne kon loolu daal moom daal leen indi leen tey xam naa ñu yamandi foofu ba beneen yoon di jégglu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.